entier de notre programme, du programme du candidat Bassirou Diomaye Faye, euh, la réforme de l'État et de l'administration, pour que les injustices cessent pour que plus jamais l'État ne soit détourné de sa véritable mission, celle de servir le peuple et non pas celle de servir des causes politiques. Ceci, dit, j'ai dit que c'est une journée qui démarre avec ce constat triste, qui va se terminer dans la joie parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette journée, Inch'Allah, notre candidat, Bassirou Diomaye Faye, sera largement élu et dès le premier tour. Et cela est, d'autant plus évident à nos yeux que nous observons une forte influence des Sénégalais, de la diaspora et de l'intérieur du pays. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle affluence dès les premières heures du scrutin. Et nous savons que cette influence est due particulièrement à notre candidature. Et cette affluence est particulièrement jeune aujourd'hui. Ils avaient chantonné partout que ces jeunes ne voteraient pas. Et nous rendons compte qu'ils sont massivement venus dans les bureaux de vote dès 6 h du matin, 7 h du matin. Cette affluence est également général les femmes, les personnes âgées. Et nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante. Et que ce soir, Inch'Allah, à 21 nous aurons les premières tendances qui montreront que le candidat Bassirou Diomaye Faye passe à plus de 50%, à largement plus de 50% euh, du suffrage. Vous avez certainement eu des échos au niveau euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir Pour le moment, nous, on nous a pas encore signalé d'incident. En tout cas, pas d'incident majeur. Nous souhaitons que cette journée se déroule de cette manière-là jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'incident. que les Sénégalais sortent voter massivement. Ils vont le faire parce qu'ils comprennent les enjeux. Contrairement à ce que les politiciens de l'autre bord croient, les Sénégalais comprennent les enjeux. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de montrer que le mensonge, la roublardise, l'argent sale ne l'emporteront jamais sur la vertu et la vérité. Et les Sénégalais démontreront que les, les vertus dont on s'est paré depuis longtemps, en Wolof on parle là de Djom, de Foule, de Faïda, de Coléré, que toutes ces vertus-là sont encore présentes au Sénégal et que les Sénégalais sauront faire la part des choses. Et que aucun lobby étranger également ne choisira un président de la République. Et c'est pourquoi nous allons lancer encore une fois cet appel-là pour demander aux Sénégalais à sortir massivement. Nous souhaitons que le taux de participation de cette année soit un taux de participation record depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse dépasser les 70 ou 75 de taux de participation. Ce sera pour la légitimité du président que nous allons choisir, cest président Bassirou Diomaye Nous lançons cet appel-là, mais nous lançons également un appel à la vigilance, particulièrement des jeunes qui continuent d'organiser les rondes et les brigades de surveillance et de sécurisation des élections. On a vu ce qui s'est passé hier à Ziguinchor. On a vu en tout cas une vidéo circuler euh, qui faisait état de Bissau-Guinéens qui auraient été transportés par des acteurs politiques locaux pour voter au Sénégal. Euh, au Sénégal. Nous avons toujours dit aux jeunes que c'est à vous de prendre votre destin en main et de sécuriser ces élections en organisant des brigades de surveillance et en refusant qu'un étranger, et par étranger je ne parle pas de gens qui sont établis au Sénégal depuis longtemps, qui ont sont transportés par des cars, qui traversent les frontières gambiennes, euh, euh, euh, bissau-guinéennes ou mauritaniennes, pour venir voter au Sénégal. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour l'empêcher par tout moyen possible. Parce que c'est une élection du Sénégal, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et je lancerai également un dernier appel à, euh, au calme, à la sérénité. En tout cas, nous n'avons aucun intérêt à ce que ces élections soient perturbées parce que nous allons les gagner, c'est prêt à Dieu. Je dois lancer un appel pour, éviter de répondre aux provocations. particulièrement dans le Baol, dans le département de Mbaké. Le plan, c'est de créer des provocations pour qu'il y ait des rixes, pour qu'il y ait euh, des affrontements et que les autorités en tirent des conséquences pour euh, demander la suspension du vote. Demandons à tout le monde de garder son calme, sa sérénité. Et nous lançons un dernier appel au ministre de l'Intérieur pour qu'il sécurise les Sénégalais qui doivent venir voter. Ça ne doit des jeunes, Mais si l'État est défaillant, les citoyens prendront leurs responsabilités pour sécuriser leur vote. Nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur que toutes les dispositions soient prises pour éviter que ça et là, des nervis soient recrutés pour venir perturber le déroulement du vote. Voilà ce que je voulais dire. Alors, à Wolof, euh, à Wolof, euh, ginnaaw bi nga voté mun nañu lan lañ mun a jàpp euh, ci situation bi ak lépp loo xamante ne ci wàllu